alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabi al axyar wasallama tasliman kasira asalaamaaleykum wa rahmatullahi bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu di leen siyaar di leen bal àq di leen balu àq am suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne dara tawu ko mu boole ñu jéggal suñuy bàkkaar defal ñu tawfeex saay rek baat nawet bi nga xam ne moom la ñu dugg itam suñ borom yàlla na ci wàcc ndoxum mu ndoxum mu mu bari mu ànd ak jàmm ak naataange xéwal yu bari te muurloo ko euh, ci euh, bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, ñu ngi sant nag ñëpp di gërëm ñëpp man euh, maa war a sant nit ñi waaye kenn waru maa sant ah, parce que li ñuy def maa ci war a jiitu en tout cas daal ñëpp sant nañ leen gërëm nii te nag sama cant ak sama ngërëm dama koy beral jigéen ñi ndax seen taxawaay rafet na surtout maa ngi koy tàmbalee ci lappe gi nga xam ne fi lañ koy defee jigéenu lappe duma tudd kenn mais yéen ñëpp laay wax ay jàmbaar ngeen ay jàmbaar ngeen ay jàmbaar ngeen ñëpp xam nañu ko sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla na leen yàlla fay seen taxawaay rafet na ba ma nekkee ca Touba tey waaj a ñëw daf maa wóor ne bu ma ñëwee dinaa leen fekk ci liggéey bi te bu ma ñëwee yàlla mi amul kumpa xam ne bu ma ñëwee ci liggéey ci digg liggéey bi laa leen fekk dép ay vingt et une laa ñëw fii ci laa leen fekk bi ñu xëyee ci nit lañ nekk ba li ñu war a def lépp ñu def ko te noonu lañ doon def naka jekk kon nag foofu ngeen jàpp bu leen ko bàyyi ñun nag am nañ rafet njort lu rafet ci dëkk bi ak ci euh, nit euh, gone yi ndax ab dëkk bu fekkee ne jigéen ña fa nekk ñëpp dañoo xam ne dañu ay nit ñu baax lañ kon yaakaar nañ ne wax dëgg yàlla seen njaboot dinañ war a baax sant nañ leen baax a baax a baax ah euh, en defar lappe nag yéen dañ leen sant gërëm waaye nag ñaanal leen dinañ dinañ dinañ leen ñaanal baax a baax a baax baax ay milliards yi nga xam ne mooy defar diine euh, di defar àdduna defar alaxira yàlla na leen ko suñu borom may te may nu ko te ngeen ah, te mu ànd ak gudd fan ko ànd ak wér samay wax nag du xaw a bari lool lool. daa am benn xasida boo xam ne defoon nañ ko bëgg koo jottali donte eh, lott nañ ci war koo mën a jottali sax waaye xanaa nu jéem ci rek ah dañ ko tudde woon nag eh, jokkoog eh, mbàkkeeg mbaakol lañ ko tudde woon jokkoog mbàkkeeg mbaakol lañ ko woon kon ñu jéem ci nab nabi ci lépp loo xam ne jub na ci tam ngeen xam noonu lu ci xaw a manqué tam ngeen jéggal ko rek nga xam ne doomu aadama mooy doxe noonu waaw bismillah axasubillahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah alhamdulilahi santat yàlla buur bi nu may askan wu jar roye ballaak muuri yaa jara roy seen aslu mooy jàng alquran liggéey dunde mbay tey sàmm war moytu bakkaar balla yaa jara roy sun maam de mooy Moustapha doonoon sëriif tulu wér jox leen ko cër soo mënul maandul ndegam bëgg nga wér Seex Bamba moom Seex Bamba moo xam sunuy maam soxna jaa ngi fi tey sax Seex Bamba moo xam lu Seex Bamba soppan soo bëggee ami may maam xasta moo tax ñu naam tey mewndu mam madu mi mooy moo ami sooy bu saali bàyyi laxat Mamadou Modou mi kon dañoo bëgg a wax rek foofu ñu leeral ko tuuti ne maam Modou Asta Jaxate duñ koy wax maam Asta Touré mi nga xam ne moo ko meññ foofu lañ bëgg a jëm te mooy maame Serigne Saali sëñ Abdoulaye sëñ Sohaybou moo tax ma ne maam Asta moo tax ñu naa tey miwundu maam Modou mi Modou Asta laa tudd mooy maame Sohaybou Saali Baye Lahat Modou mi yow soo goree te nga roy Abdoul Ahad sang bi te xam ne mooy te xam ne fii mooy cosaanam yow rusal sang bi yow soo goree tee nga rus Abdul Ahad sang bi te xam ne fii mooy cosaanam yow rusal sang bi yow mbaa nga soppal ma seet sooy boobu jagaleem ci toolu alquran ahadis mbàkke yaa jaraxam xoolal ma seex saali woo daaram yu rëy yu ne fés ñooy suñ sëriñ waaye ñoo di bokk nun duñu sos lappee di Madina Cheikh Mor Faati yaa Jarroy sëtub sërif la waaye di waaye Cheikhub Daaru yaa mat roy ndegam danga sopp Cheikh Modou ca Daaru Salaam wegal nu soxna sa maam Roqiyu Tuure Salaam ndegam danga sopp Cheikh Abdoul Latif rusal ma maam faati moor satub sariif la bu wér jooy naa xiisa moo di mbokkum ñépp yal na texe ci barke Cheikh Bamba mbaar mii jooy na Cheikh ba tuxu mooy Cheikh Issa moo daa sagal mbaar mi xàmmeeg bokk lool di ca wax lapp lappee ngi jooy duli jooy ciy mbàkke yàlla na texe bàyyi daam boroom lappe nan ñaan yàgg lool te nga wér lewet nga sell nga mat njiit bàyye yow yàlla na nga wér allahumma salli ala mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant te di nuyu kilifa yi fi teew yépp di leen bal ak di leen balu ak di am mbégte bu baax a baax ci jotaay bii nga xam ne sunu boroom defal nañu tawfeex ban teewan fi daaw mu dimbaliwaat nu ban teew fi ren ca gën gaa rafet aw teewin kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax dellu santaat yàlla ci euh, ñi nga xam ne dañ fee teew yàlla dogal ñuy dundal ak mbokk te ke ak mbokk kenn ku ne xam na li ci suñu borom wax muy ku ko jokk ma jokk la ku ko dagg ma dagg la kon mun suñu borom baaxee ban teew fii at mu jot di ko dundal kon loolu war nañ ca santaat yàlla bu baax a baax kon ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di am tuuti loo xam ne dañ koy waxtaane ak sun mbokk yi nga xam ne ñoo bàyyi ko Touba ñoom ñëpp te bis bii rekk ñor leen ñu yàgg fee daje ngir lu baax bis bi nag bis la boo xam ne wax dëgg yàlla nun waa Lappé war nañoo laxasuwaat bu baax a baax a baax fonkaat ko bu baax ndax kenn ku nekk am nga bis tubaab yi sax boo ci demee dañoo am bis kon bu nu yàlla dimbalee nun ba nu am bés boo xam ne lépp dafa tege ci siraatal mustaqim tege ci ndigalu sëriñ bi kon nun wol loolu war nañ ca sant yàlla bu baax a baax te góor góorlu ci mooy ko fas yéenee nekk ca kanam takk sunu ko laxasaay bu baax ndax wax dëgg yàlla bis bi jar na ko kon gannaaw bu loolu wéyee tamit ñu sant maam Balla ñoom ñii ak mboolem ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko Touba ci ker gi nga xam ne dañ ko fee def ngir dëkk bi ñor leen rek moo tax ñu def ko ndax kenn ku nekk xam nga ne la nga am xaj na ci sa bopp waaye da nga am pas-pasu am loo bëgg loo dëgmal bëgg koo def nga wan gannaaw la nga xam ne moom nga war a sa sa bopp ngir def lii kon nun loolu dañ cee war nañ cee bëgg war nañ leen cee sant bu baax a baax ñaanal leen tamit. li nga xam ne yéene nañ ko ci dëkk bi fuñ ci bëgg a àgg suñ borom àggale li ma mën a waat mooy bu leen yàlla joxe ay milliards bu soobee yàlla dëkk bi ku fi ñëw danga xam ne da nga xam ne dëkk bi defaru na alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin lii rek sedd na xol lii rek wane ne buñ masaan xiin rek ñun ñëpp dañuy daw dañuy dawandoo jógandoo kan nañ seen yàlla bu baax a baax kon ñu jox sañ sañ alaaji mi nga xam wax ci ànd defar lappe sëñ Alaaji Touré bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sun mbokki mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara ci nuyoo bi gën a tedd muy asalaamaaleykum wa rahmatullah wa di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Serigne Abdoul Ahad Mbakke. moom Cheikh moom Serigne Cheikh moom Cheikh Abdou Latif mi ngi ci jotaay bi ak rakkam Serigne Mamour ak mboolem kilifa yu tedd yi fi teew ñëpp. di siyaare suñu baay Serigne Moustapha Touré ak mboolem magi Touré yëpp ak mboolem mag yi bokk ci famille bi te santuñu ñu ngi leen siyaare ñoom ñëpp. waaye di siyaare tamit képp koo xam ne dañu lay tudd di tudd lappe ak foo mën a dëkk ak noo ci mën a bokkee moo xam nga sëtoo ji moo xam nga jarbaatoo ji moo xam noo ci bokkee ñu ngi lay siyaara di leen jaajëfal bu baax ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne te nañ ko di leen sant waaye di sant tamit waa association ànd defar lappe muy association bi nga xam ne gone yi sosoo lappe ñoo ko taxawal ci njiitul Serigne Mame Balla Touré moom baay ma xujja ak soxna màgget Dieng ak Serigne Galas Amina ak mboolem ñin ko àndal Serigne Baara xel ko mag ñëpp xañ na dañoo neexutal li mooy am na yéene tudd ñëpp ñu ngi leen di jëfal ci seen taxawaay bu rafet ci mboolem organisation bi nga xam ne gis ngeen ko fi mu jaar yoon lépp mën nañ ne ñooma kon ñooñu ameel nañ leen ak cant ndax ñun ñëpp la war waaye day mel ne bu ñenn ñi taxawee di ko def day wàcc ñi ci des kon ñi ci des ñoom it ñu ngi leen di sant ndax ñun seeni rakk lañ ñii seeni doom lañ ñii seeni jarbaat lañ kon loolu suñu warteef la waaye teewut ñu sant tamit ñi nekk ci bopp bi ndax mbir la moo xam ne ba mu taxawagut xañ na yëf yi dawul mel nii ku ne xam na ne daaw biñ fiy jógee jëloon nañ fi kàddu soññee fi ci association bi xañ na am na ak dolli ko waaye des na ba tey ndax buñ xoolee mbooloo mi teew fii ci ay ndaw wuute na lool ak lim bi nga xam ne si ne ñoo bokk ci association bi di am defar Lappé te association bi mbir la moo xam ne ñépp ci war a bokk moo xam muy mag ñi moo xam muy ndaw ñi képp koo xam ne si ne dëkk nga lappe te lappe ñor la war ngaa bokk ci association bi ndax tur wi dafa leer association ànd defar lappe du ànd defar faneen du ànd demale lenn fenn fu dul lappe kon képp ko safoo lappe di tiitaroo lappe bu ñu tuddee lappe nga bëgg war ngaa bokk ci association bi te di ko jëmmal fexe bay teg teg bi nga xam ne si ne moom lañ sas mbooleem koo xam ne bokk nga ci bu dee góor vingt-cinq mille 25 000 boo ko tuddee mën naa nuru lu bari lool ci sama classe nga xam ne xañ na taxul mu demee noonu waaye 25 000 ci at du dara day mel ne weer 2000 rek la weer ñeent téeméer rek yaakaar naa ñim të ci jotaay bi néew na lool bu dee am na kon nañ gën a bàyyi xel association bi te fonk ko moo xam nga sant Touré moo xam nga sant Diop moo xam nga sant Mbeng moo xam noo mën a sant te bokk lappe bokk ci association bi loola war la moo xam ngay góor moo xam ngay jigéen ndax mbir mi du yëfi góor ñi dong yëfi góor la ak jigéen te association buñ ko xoolee benn jigéen bokk ci waaye tamit benn tur tànk bokku ci menn mag tamit bokk ci day mel ni xale yi digg doomu comme sama classe nga xam ne ay fanweeri at ak fanweeri at yu manqué day mel ne ñoo ci ëpp te lappe ñi fi dëkk du ñooñu ñi nga xam ne sene sax lappe lañ nekk te nekkuñu yeneen dëkk yi war nañ cee mën a bokk niñ ciy bokke mooy sëriñ Maam Balla mi nga xam si ne mooy président bi mi ngi nii taxaw amoon nañ ay carte membre yoo xam ne defaroon nañ ko daaw doon ko wecc ko góor ñeenti téeméer yaakaar naa sax yooyu kese lañ defaroon waaye dañoo bëgg ñu jàppaat ci bu baax ci liggéey bi te xam ne dëgg la dajaloo fi yomb na lool waaye li ñu koy tax a man ab xaalis da cee bokk te xaalis boobu buñ ko bokkut dajale ngir mu yemm dina jafe kon nañ bàyyi xel ne suñ dërëm yi lañ dajale ba lii ñu am ñu mën koo am moo xam muy mbaar mi moo xam muy lépp loo xam ne si ne nit jëfandikoo na ko fi rek na ko wér ne xaalis ko def te xaalis boobu ko def kenn nit defu ko waaye ay nit ko def waaye bu ci ñëpp jàppee day gën a yemb liñ bëgg gën a am teg coono du am ndax suñ bëgg-bëgg dafa bari lool comme ni ko mag ñi di waxee jamono ji léegi fi mu toll ñi ngi naan jamono neexut waaye jamono neex na bëgg-bëgg yi moo ëpp am-am yi ku ne xam na ne fii ñuy taxaw di fi def waxtaan wi dañ fi daan baas ren am mbaar la moo xam ne mi ngi taw te yàqaluñu dara ci jotaay bi kon loolu yokkute la waaye bëgg nañ fi tamit ak kër boo xam ne si ne dañ fiy dajale mboolem koo xam ne daa jóge tuubaa ak nga jóge ci yeneen dëkk yi ngir ñëw ci daje mi nga daje fa ndax loolu dafa doon loo xam ne si ne dana yombal organisation bi ci fànn yëpp moo xam ci wàllum séddale lekk moo xam ci séddaleem naan moo xam ci waxtaan moo xam ci ma lu mën a doon dana ko yombal tamit xamante bi des na lool loolu moom mag ñi xam na laa koy wax xamante bi des na lool gone yi dina daje naan ture nga ne ture wala ñu ne la jaane la wala ñu ne la silla wala ñu ne la mbay waaye ngir nga xam dëgg-dëgg kii lan moo leen boole des na loolu moom mag ñi xañ na ñoom laa koy wax ñu soññ kooku ngir bu ëllëgee ñu mën ñoo teg yoon woo xam si ne danañ ci mën a jaar ba kenn ku ci ne buñ ne laa kii yi diw la nangam la sant bu ëllëgee boo gisaatee xam ne kii nii ngeen bokk lii moo leen boole ndax li ñuy dajale fii ak mbokk la fexe xamante fexe di demelante waaye tamit ñu gën a fonk tamit demelante xew yi lu mel ni céet yi lu mel ni ngénte yi ak yeneen xew-xew yi nga xam ne mënut a ñàkk lu ci mën a am ku ko yëg ak foo mën a ne loo mën a jàpp nga bàyyi dem ci tax ndax ak mbokk dafa diis kon maa ngi koy loo xel gone yi ñu gën a fonk tamit dem xew yi te ñi am aw xew tamit nekk Touba wala ñu nekk faneen ñu di ko wax ñu ko war a wax ñu di ko yëg ndax yëg gi da ci am solo boo mënee dem dem boo mënta dem bu ëllëgee nga xam ne diw mi kat xew la woon na nii waaye bari na fi ñoo xam ne samay doom lañ comme ni comme ni ma amee doom yi ma jur te xëmma leen te loolu li ko waral mooy xew yu ñàkk wax yoo xam ne si ne yëguñu ko wala loo xam ne si ne tamit dañ ko kii nii rek te jamono ji wees na foofu ndax ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn kër goo ci dugg day mel ni sa kër baay nga nekk kon nañuy wax xew yi di demalante di dikkante te gën a wàcc suñ bopp nañ gën a wàcc suñ bopp te xam ne menn maam lañ am muy maam Moustapha Touré képp ku ci sopp koo sant ture ak foo mën a dëkk ak loo mën a doon ci maam moom yi rek moo ñu boole kon ñu xam liñ bokk te fonk ko maa ngi soññ nag comme ni ma ko waxee woon ñëpp ñu bokk ci association bi ndax association bi dafa doon mbir moo xam ne si ne day yombal liggéey day yombal liggéey bi dajale la nag ab lim boo xam si ne xañ na mënoon naa gën a takku waaye xañ na foofu la jamono toll ndax ñii dañuy man ñii ñàkk man bu ma juumut dajale nañ lu toll si trois cent trente cinq mille et quelque waaye trois cent trente cinq yooyu boo xoolee rajo yii ñuy waxee association ànd defar la moo ko jël fay ko xaalis mu ñëw fii bu loolu weesoo seize yi waa association ànd defar Lappé ñoo ko fay bu loolu weesoo boisson bi ñu doon naan waa association ànd defar Lappé ñoo ko jënd ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne si ne xañ na du neex a lim ndax wareef la waaye nag buñ ci jàppee ñun ñëpp kenn ku ci ne la la ci war nga def ko buñ ci àggatee lépp luñ bëgg dina mën a yomb ndax fii moom dafa doon bërëb boo xam saa ñu fi dajee lépp daa war a des kanet yi daa war a des ne kenn du ko mën a naan ndox mi des ne kenn du ko mën a naan ñam wi nefee ñu koy bett ndax bu ma juumut Serigne Saalix daana wax naan màggal fekk agguñu ci yuuri yàpp yi bu màggal bi jàpp jàllee màggalaguñ kon nag lapp gi ñu ne nañ ko fonk ndax mooy suñu Touba moo ñu boole ci tuuba moo ñu boole ci Serigne Touba kon nañ gën a fonk dëkk bi te gën a fonk association bi ndax du ma dañ di ko wax ndax ñun benn objectif boobu lañ am muy association ànd defar lapp amuñu leneen lu ñu boole keneen ku ci ne leneen la la boole faneen loola yow la waaye bu dee fii li ñu fi dajale association bi moo ñu boole kon nañ ko fonk te jox ko yitte léegi dañ cee bëgg def lu bees muy bu dee jigéen ku ci bëgg bokk dañ la ko defar at mi yëpp 5000 francs bu dee gone gu amagut fukki at ak juróom benn at mi yëpp 5000 francs nga xam ne kon góor ak jigéen dañ ciy mën a bokk ci 5000 francs ci at yi bu dee ku ko mën nag we at mi moom 25000 la ku la ko ëppit xëyrun ndax lépp fii lay jawaat ci dëkk bi bu loolu weesoo ñuy soññee ab jaayante boo xam ne dañoo bëggoon kenn ku ci fa nga toog lépp loo xam ne si ne yëg nga ko nga bëgg koo def ci dëkk bii fa nga toog nga yëkkati la nga am ci sa kàttan te mën koo joxe nga joxe ko ngir jëmmi borom dëkk bi ngir jëmmi lu màggal dëkk bi ndax ni ma ko waxee bari na luñu ñu war a def ci dëkk bi te defaguñ ko bari na lu ñu war a def ci dëkk bi lool te defaguñ ko kon maa ngi ñaan képp koo xam ne si ne muy góor muy jigéen yor na loo xam si ne mën na ko barkeeloo ci dëkk bi ndax bii dëkku barkee la lépp lu fi waay jox boo ko joxee day mel ne da nga ko def ci yoonu lislaam ñi ngi ñaan ñëpp kenn ku ci fa nga toog la nga man ci yëkkati ko mën koo joxe nga yëkkati ko joxe ko ngir jëmmi dëkk bi ak jëmmi borom dëkk bi ak jëmmi luy jëmmal dëkk bi ñëpp bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen ak mag ak ndaw lépp lu waay mën a joxe rek xeebuñu ko bu kenn xeeb li nga yor bu kenn yéem li nga yor kenn ku ci li nga yor waaw kenn ku ci nekk mën nga koo jox ka nga dendeel mu jottali ko ba mu egsi fii ci taabal ji maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant bu baax mboolem ñi nga xam ne teew nañ bi suñ mag yi suñ bàyyi ñëpp bàyyiwuñ kenn di xamal ne bokki dëkk bi nag nun waa dëkk bi fi nekk te nekkal fi dëkk bi nekkal leen fi li si Alaaji Ture wax doy na sëkk ab dëkk bu ñu dee benn tamit dëgg fi ñoom kenn ku ca wax doy na li may bëgg wax nag day ab yónnent boo xam ne day ab yónnent boo xam ne ci maam bu sa Ture la ko jigéeni dëkk bi yónni muy jotu seen ak ñu topp ci moom ñëpp nag te nekk ci dëkk bi ak daaru Ture dañoo wax ne maam Bousso nee na ñu ngi lay sant te di la gërëm ndax xam nañ ne nekk gi nga nekk seen kanam dangay defar waaye ak yàq néew ci kon nag seen xool sedd na seen xel dal na li nga xam ne moom lañ bëgg daal seen jéego yi ren yi a ah, bu dee ni ma ëpp lii nag ñoo mënoon naa ko teg ci sa loxo ñu la ko ñu duggee ko ci bis bi am na weccat seen xol seet na lool ci yow ndax waxtu ne yaa ngi leen di téléphoné ak yóbbante ak di wax li ñu war a def loolu nag moo def ak ànd sant nañ la ci gërëm nañ ci yàlla na seen ànd yàgg yéen ànd defar lappe nag xaw ma na lappe ngeen defar xaw ma nun ngeen di defar nun ñu dëkk lappe waaye suñ xel sedd na nun ndax taw bi dara warul ko lu may di leen waxal seen njariñ li ngeen fi def naaj tàngu leen yéen a ngi toog di waxtaan te leen te lool dong nga tax di si kon nag suñu xol seet na suñu xel dal na yàlla na leen fi sunu borom bàyyi te may leenu fan te li ngeen bëgg ci dëkk bi ngeen yeggale ko. soxna yu dëkk bi ci njiital na Jëtu Seen a ajaratu Mame Bass Touré mi ngi leen dellu ak cant bu baax ak nuyoo yi. baax ndax cant gi ñoom rek ñoom maa leen ko ameel nee na mi ngi leen sant bu baax ndax cant gi ngeen di wax moom moo leen ko ameel waaw ndaxte ba ma wootee ñoom ñëpp wis nañ ba ma ne ñu génn ñoom ñëpp ñu génn takku laxasaay ndax nee bi mu wootee yéen ñëpp wuy ngeen ànd yéen ñëpp takk laxasaayu jiitu ko ci kanamam nekk ci li nga xam ne moo leen fi indi kon nag jaajëf ji yéen ko yor wax dëgg yàlla jàpp na ngeen ko bu baax jàpp ngeen bu baax a baax li ngeen ci war lépp def ngeen ko jàpp ngeen bu baax a baax a baax yéen lépp yéen ko yoroon rek ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax. ginnaaw bu loolu maa ngi sant tey rajo bi. waaw maa ngi sant sama Mbàkke nee na ginnaaw loolu mi ngi sant soxna Astu sa Saam. soxna Astu soxna Astu Mbàkke Saam mii. bàjjen maa ne moom sëñ Modou Fall Touré jur ko. ca sëñ Moustapha Basir yor ko ñoom moom ñoo ñaar ñu bokk dëkk Daaru Minam nee na mi ngi koy sant bu baax muy suñu sëriñ nee na xaritam la wëllëreem la nee na léppam la moo ko tax a taale wataam Touba ba egsi fii ak xam ne dëkk bii dëkku maam la kenn gënu ko ca yaay wax nee na wax na ne li muy def ci eh, Poroxaan di ko def ci Soxna Jaara di ko def ci fépp fii nga xam ne mooy kër maamam fenn gën ko cee yaay bu soobee yàlla dina ci dina ko ci boole ci eh, ci ci asandaam bu soobee yàlla nee na mi ngi sant soxna Ndey Mbàkke baay ma ko jë soxna soxna Ndey Mbàkke ture laa koy wax soxna Ndey Mbàkke Touré nee na mi ngi koy sant bu baax a baax moom tamit ci taxawaayam euh, lu lu métti métti sëtu sëñ Fall la waaye dafa laxasaayu rek nekk Baye Fall waa Touré wax woyof toll bàyyi ay ànd ak ñun lépp moo ko yor moo yor mbind mi moo yor otees yi lépp moo ko yor organiser ko ba mu jaar yoon mu ànd ak soxna maam bu sami ci liggéey bi nee na mi ngi sant rakkam yëpp jigéen ñi ñëpp mi ngi leen sant ñëpp rek mi ngi leen sant ñoom ñëpp nee na Ndey Touré mu ndaw mi ngi koy sant moom bàyyi ma ko jël xale la waaye moom tamit mi ngi koy sant bu baax nee na xaleem lo xaleem la waaye xale la waaye loxoom set na mën naa bokk ñëpp yàlla na ko suñu borom lafal cat moom it te may ko uh, wér waaw moom it ku maandu la ku sell la te bëggul dara lu dul ak defar nee na mi ngi koy sant di sant gone yëpp. waaw noo ne nag lii muy sant mooy jëwriñ yi nga xam ñoo ci ànd rek waaye ñëpp a ko bokk mi ngi sant maam Jaara moom Baye Thierno moom Bintu Diop moom it mi ngi koy sant ab taxawaayam. waaw dugg na ba noppi ba bëgg ñëw dafa am ndog ginnaaw gi moo ko tee ñëw moom maam Jaara moom. nee na mi ngi jàpp ñëpp ñi sant xanaa daa mun a ñàkk tudd ñett ñenn rek moo tax mu tudd ñooñ waaye ñëpp la sant. nee na mi ngi sant dëkk bi ñëpp. waaye di ci beral cant Ndey Touré ñoom ñii ak Soxna Fatou Touré ak waa kër ma dem Mademba ñii ñëpp mi leen sant ak waa dëkk bépp nee na sëñ Seex Abdou Latif mii sëñ ñu koy wax sëñ Seex Lappe moom tamit di sunu sëriñ di sunu mbokk di sunu xarit ñoom it ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd wa ànd ak wér ak wérle woo xam ne dina man di jàppale kilifaam di nijaayam sëriñ Muntaxa ñëpp rafetlu na ab taxawaay foofu ñu ngi ko koy ñaanal ak wér ak ak kattan di sant waa kër këram ñii sëñ Abdou Lahad a ngi toog nee na soxna Lootu Diop soxna Maam Faati bàyyiwut kenn ci waa kër gi ci soxna yi mi ngi leen sant ñoom ñëpp nee na dafa def lu rëy dafa bokk dafa ànd ak soxna Maam Faati Dieng mam bokkal ndey ki mu wàcce amum tudd mooy ki ah, muy soxna Bintu Silla mii nee na loolu da ko daa jox cër bu rëy ndax dafa ñëw fekk fi mbàkke mbàkke yaak ñi mbokkal baay ak ñëpp mu ne ko yow mii soxna maam bu sa yaay leew doom ji yaa ko yóbbu ñu tudd ko muy sëñ Abdou ak Mbàkke yàlla na ko yàlla may fanu gudd ànd ak wér soxna maam bu nee na xolam sedd na bu baax sant na góor ñi jigéen ñi ñëpp ndax wax dëgg yàlla ñëpp ko nangul nee na mi ngi sant bu baax a baax nan ñaan yàlla rek mu jëm kanam waa nee na sant na góor ñeeg jigéen ñi bokkal baay ñëpp ak rakkam yëpp yi nga xam ñoo topp ci ginnaawam ak waa dëkk bi ñëpp mi ngi leen sant jërë ngeen waaw man nag li ma ciy dolli mooy ndogal dee leen dogalante ngant dee leen dogalante ngant kii am wér na na xam ne am na amul wér na koy dogal ngant kii am wërsëg nay dogal ki nay dogal ngant ki amul wërsëg xam ne la man mën naa mënu ko ki am jot noonu dee leen dogalante ngant bu ko defee ànd bi dina gën a baax bu baax a baax a baax bu kenn jàppal sa borom lenn bu nit defee dara rek dogal ko ngant xam ne mën naa am daa mënut wala daa kii xamul rek waaw kon na yéen góob góorgóorlu Mame Balla ñu ngi leen sant bu baax. bëgg jël leen ba keroog ngeen am loolu lu yàlla yàlla fay ci loolu yëmul ci loolu bagage yi mu diis a diis weñ diis ba kenn xamut nu at amuñu oto bu ko yóbbu mu abal lu oto Dakar ba Lappé. seng yi jëndee ko Dakar seng yi dong 1 million 494 mille lañ ko jëndee boo ko teg weñ yi weñ wi 1 million 630 mille lañ jëndee weñ mbaar mi Xaadim Touré mi yoroon budget bi nee na ñaata 4 millions yu manqué 1500 francs lañ ci def te loolu te agagut 4 millions yu manqué 1500 lañ ci def te agagut léegi nag daa am loo xam ne mënu su ko ñàkk ba jox yëkkati xaalisam ab abal nu oto. bu jógee Dakar ba ba lappe seng yi ñu dem Dakar amu fa ñu ne Touba la am mu abalaat doo oto bu jógee Touba ba lappe loolu nag yàlla na ci yàlla fay loolu ñun ñëpp sa nañ si gërëm nañ si yàlla na yàlla doolu sa wërsëg yokk sama fan yokk sa xéewal jërëjëf ñu jox kàddu gi sëriñ Cheikh Touré sëriñ Cheikh bisimilah. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mu mel ni eh, ginnaaw ban sant yàlla julli ci yonant bi teddali sunu kóllëre ak sunu kóoluteew ci Seexna Ahmad Bamba ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp sunu kàddu yi tey nag mën naa bañ bari sant ak mbég rek la ak ñaan ndax fii ñi fi daje ñi fi ëpp bari wu fi ay baay ay rakk moo fi ëpp bari wuñ fi it ay mag waaye nag cent googu rek moo nu tax a jóge fa jóge ba egsi fii liñ ciy bokk-bokk ndax wax dëgg yàlla amoon nañ ngànt waaye nag sunu ngor ak sunu jom ak seen kóllëre seen kóllëre mayuñu ñu toog lu ñu tële tële te fas nañ fi yéene teew wan leen ne leen lii ngeen nekk jasaakallaahu xayran yal na yàlla fayante ak yéen yal na yàlla guddal fan yi wéeral cër yi bi te musal na faw ci saytaaneekum ndogom ci àdduna ji nekk ak alaaxira ñu jëm tey it suñ tubaa nangul nu sunu cofeel ci nun ci ci ci moom moom it li nga xam ne moom la bëgg ci nun yàlla na ko si yàlla sama borom tabaraka wa taala defal lu kawe njort noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di sàkku ci ñaan ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu